Euh, naka nga gisee dispositif bi ak actuellement est-ce que euh, maanaam gis nga ni yow carrément que ni nit ñi ñu ngi ñëw en masse pour voter si tey. waaw sant loolu laa gis sax. ñu mhm. ñaari ñëw bu ñëw pour def seen droit citoyen loolu doy na sant yàlla ñu def ñaan si yàlla ñu commencé ko si bisimilah yeggale ko si alhamdulilah. Mhm. Mhm. nan nga tudd yow. man maa ngi tudd Omar Bitéye. d'accord soxna si ñu ngi lay ziar sëñ bi na ngeen def mbaa yaa ngi si jàmm alhamdulilah yaa ngi en direct sur Dakar Actu donc euh, ñu ñëw rek euh, def situation bi un peu xool naka ngeen di dundee euh, vote bi fii ci centre HLM Grand Médine alhamdulilah en tant que citoyen xëy na ñëw def li ñu war ñëw def si li ñu war a def xam ne Sénégal benn bopp la élection nag ñooy fal président donc ku nekk na def li mu war a def su paree toog sans résultat mhm.

ben candidat bi lay voté. donc euh, présidentiel nekk mu capital. Mhm. donc ñep nak japp nañ ñoo ci conscient. ndax mhm. ñep ñëpp ñu a yore. Mhm. fàttali ñu tur bi señ bi. absila pap adama sidia jere jërëjëf pap merci beaucoup. voilà gis ngeen ko euh, toujours euh, Samba gis nga li nga xamni donc mom moy présence ñi nga xamni donc ñoy les électeurs mom la lay wax légui gis ngeen. Euh, bureau bi moom mooy bureau numéro 2 donc bureau numéro 2 euh, fii également rush bi euh, gudd na lool gis ngeen déjà ñi nga xam ne donc ñoom ñoo sëñ bi na ngeen def ah ñu lay ziar fàttali ñu tur bi alors euh, on a perdu Sadibou Fall tant qu'on ñu garder ko en repère ok Sadio boobu nga continuer waaw. voilà Sadibou Fall foofule ca diwaanu HLM Grand Yoff nag ngir daal di rek safonte ak Sénégal yi fa ñëw nag daal di voté si. waaw fa nekk. maa ngi nii ñu ngi ñëw alors que na ñeneen ñu war a ñëw bi. fàttali ñu tur bi yow nga tudd. Al fii nga def. waaw mais euh, tey boo doon conseil lan ngay wax candidats yi ak aussi même ay électeurs yi ak citoyens yi nan lañ war a euh, comporter woo tey ci bés bi. waaw tey moom may conseil nit ñi ma ñëpp ñëw voté parce que c'est important parce que dañu war ay fo bare kuy ñëw da nga bàyyi xel ci conseil yi bañ a andi bi wane ni que da di ñëw di jéem a influencer yeneen voté yeneen nit yi bu nekk daal na ñëw voté li muy voté génnaat merci soxna si na def ça va bien merci. Ah, yaa ngi si jàmm. bu baax alhamdulilah naka koor bi. ça va. alhamdulilah euh, fàttali la ñu tur bi. Mati Sow. Mati Sow voilà tey yaa ngi Fi pour voter nan nga jàngatee situation bi dans sa globalité. il ma ko les sénégalais ils sont responsables ils savent ce qu'ils veulent noonu laa ko les sénégalais savent voter comme on dit. la plupart sont responsables ils savent ce qu'ils veulent. tey également mu nekk bés boo xam ne dañu war a amal lii di acte euh, citoyen bile euh, ci dal ak euh, ci jàmm yow également nga nekk citoyen nga war a porter un message à l'endroit de ko maanaam concitoyen également ñi nga xamante ni yow li ngay def ñoom également dañoo war a ñëw def lu ni mel lan nga leen conseiller en quelque sorte

donc gis ngeen euh, toujours euh, voilà xanaa ñu xool rek euh, li nga xam ni donc moom mooy certaines dispositions toujours gis ngeen voilà li nga xam ni donc moom mooy le rush waaw ah, gis ngeen gars yi ñu ngi présentement ci bureau numéro deux situation bi fii ci biir donc moom mooy li nga xam ne donc gis nañ ko wala gis ngeen actuellement gars yi ñu ngi accomplir seen acte citoyen dengan konon cek mai momoy bureau numéro 2 voilà dispositif bi yëpp c'est déjà en place la connaissance ñoom ñooy les différents représentants de donc voilà euh, toujours euh, di xaar rek li nga xam ne donc moom mooy euh, quelques intervenants ñi nga xam ni déjà peut-être dinañ accomplir seen acte citoyen toujours ñu ngi fi nga xam ni donc moom mooy ci centre HLM Grand Médine sëñ bi ñu ngi lay ziar. wala ziar sa wala ci jàmm alhamdulilah macha allah. fàttali ñu tur bi. Amadou Makhtar Ndiaye benn bokk yaakaar dakaar benn bokk yaakaar Parcelles Assainies. d' accord yow yaa ngi Benno Bokk Yaakaar tey lan ngay euh, euh, maanaam conseil ñi nga xam ni ñoom ñooy say camarade nekk ci parti bi ak aussi bu ñu demee ba voté ba ba mu am résultat yi nga xam moom mooy les résultats final euh, na maanaam nan nga nan lan lan nga mën a wax ñi nga xam ne donc ñoom ñooy les différents candidats tey. voilà bon déjà alhamdulilah déjà comme ni nga gisee instant bi donc vote bi mu ngi déroulé dans la paix. Mhm. nest pas dans la sérénité. ñëpp di ñëw di génn si jàmm vote si donc ñun déjà suñu candidat Amadou Ba loolu la woote loolu la prôné te ci loolu lañ liggéey et ça je pense que c'est très important te gis nga vraiment ñun nous sommes très organisés et nous avons confiance que incha allah bu élection yi jeexee dinañ gagné. jàpp ngeen jàpp ngeen seen candidat tey euh, li nga xam ne moom moo war a tukkee fii muy ay résultats ak aussi yeneen candidats yi. Euh, jàpp nga ni euh, tey bu ñu demee ba ci càppaandaw ba bu mu am loo xamante ni tey war nañ mën a jàpp ni moom mooy li li urne yi wax. ñëpp aussi war nañ ci mën a tënk non loolu amul benn problème parce que loolu moom mooy démocratie mm-hmm. voilà donc loolu moom mooy démocratie côté boobu je pense que amul benn problème mm-hmm. donc bépp résultat boo xamante ne si issue de la volonté populaire mm-hmm. nit ñi xamante askanu Sénégal ñoo ko def <laughs> ñun effectivement dinañ si conformé wu déroulement de vote bi noo ko gisee ak euh, maanaam présence su électeurs yi non ça se passe vraiment très bien gis nga euh, malgré weeru koor lañ nekk ñëpp génn nañ les populations des HLM Grand Médine de Dakar se sont mobilisées et incha allah je pense que à la fin du scrutin dinañ am ndam parce que am na am solo boo xam ne liggéey nañ ko au niveau n'est-ce pas des Parcelles Assainies HLM Grand Médine def nañ porte à porte mobiliser nañ ñëpp et nous avançons en rang uni aujourd'hui benn boo ko yaakaaree uni amul kenn ku jaar fii wala véritablement kenn ku jaar fële te incha allah rek bu ñu déployé carte yi le président Amadou Ba dina am ndam te dina nekk le meilleur nest président pour diriger Sénégal. jërëjëf sëñ bi merci baax. voilà gis ngeen ko noonu toujours euh, leen di euh, euh, les images en direct les de. Euh, au niveau donc de ce centre, euh, le centre euh,